mbokk internet yi ma ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax baax ni ngeen di àndee sa su ak programme 5 TV ma ñëwaat ak yéen ci décortique bi ñu leen di defal série Mariama tey mu yem ak épisode 36 bi euh, ñu door ko ak séquence bu njëkk bi Mariama nag moom euh, lu ko neex rek mooy di kokkali kalidu ak yaayam di leen naqaral ngir rek ñu daal di koy fase waaye mel na ni euh, kalidu ku dëgër bopp la te nak nag moom fase Mariama xalaatu koo def ndax rek objectif moom la sëyee ak moom te objectif boobu mën nañu ne atteindre ko ko euh, mu mel ni kon euh, moom lu mu jàpp rek mooy euh, ngir fayu ci Mariama il faut mu takk biige waaye li mu xamul mooy nit bu la bëggul lijjantiwul boo doon am sax fukki jabar ndax Mariama moom bëgg ko considéré wul boo xam sax comme jabaram mu mel ni kon ki nga xam ni moo di Kalidou moom xamul fan lay taxaw ndax bu takkee biige itam loolu rek taxul ki nga xam ni moo di Mariama dal di soppi jikko ñu jàll ci beneen séquence yaayu musaa nag moom gis nañu ni moo ngi dëjal Moussa gannaaw bi mu déggee ni gaal bi ñoom Moussa duggoon di suux waaye nag proviseur ñëw na daal di indi euh, Moussa delloosi ko ci kër gi muy soog boo xam ni ndax boo demee yaakaar naa ba ñàkk yaakaar ba ni yaa ngi dëj buñ la indi léegi nga xam ni moom ngay euh, dëjal loolu soog euh, mënu koo weesu ñu jàll ci beneen séquence monsieur Ndiaye ak collègue am bi ñoom nag problème bu fuite yi ci lañ nekk ba tey mu mel ni nag ñoom nekkatuñu ci jàmm ndax encaissé nañ xaalis ba pare te ba tey amatuñ amaguñu ku leen corriger français bi mu mel ni ndax euh, nekk si lu dëng nekk si dëngte wala loo xam ne neexut yàlla tôt ou tard rek euh, day métti ci yow te it nag di nga ko wéetoo waaye monsieur Ndiaye moom moom nee na du bàyyi ba tax nag mu dem si jabaru monsieur silla daal di fexe rek ngir convaincre ko ngir mu fexe rek ba euh, ki nga xam ni moo di monsieur silla daal di nangu rek dal di bokk ci seen magu yooyu ñu jàll ci beneen séquence naata nag moom ba tey rek moom bàyyiwul moom it lu ñu naan alkaati du bàyyi dóor su paree daal di cay taqal abibatu donte nag abibatu yegul euh, tinul waaye béy di nekk na koo xam ni euh, góoru benn nopp la lu ko naata wax rek mu daal di gëm ba tax jamono ji su moywul dina ko séparé carrément ak ki nga xam ni moo di abibatu naata nag objectif am lenn la mooy abibatu daal di génn kër gi moom mu aaki moo kër gi moom euh, dong mu mel ni naata moom xaw ma dafa dof xaw ma dafa réere mbir ndax yaakaar naa nit boo ñëwee fekk ko ci këram da nga ko fay génnee loolu moom xalaatu koo xam ni rek sa xel neexul la waaye du nekk loo xam ni lu mën a nekk la ñu jàll ci euh, monsieur Ndiaye euh, moom nag fexe na ba créer problème ci diggante monsieur Sylla ak jabaram ndax tey jii jabaru monsieur Sylla li nga xam ni moom la ko njaay wax tax na rek mu ñëw attaqué euh, monsieur Sylla xamal ko ni ko rek santeem la war a jiital ci ay fierté wala leneen mu mel ni nag monsieur silla ni mu mel nekk na loo xam ni exemple la pour bépp professeur waaye tey jii ay difficulté rek àdduna nar naa tax mu yàqu yàqule ndax rek nar na kaa dugal ci loo xam ni mësu bëgg dugg séquence bu mujj bi euh, dem na nag ngir rek daal di jàppale euh, Moussa ngir rek ñu mun koo faj ba xelam dellu siwaat waaye itam muy jox yaayam xaalis bu takkoo takku ngir mën di ci dund ndax xam na ni seen loxo jotul seen ginnaaw Mariama nag moom li muy wane ci série bi lu am solo la ndax nekk ci école tane say morom di leen dimbali nekk na loo xam ne lu am solo la te bu ko ñëpp doon def kon yaakaar naa problème du am waaye da ngay gis na ci école yi ñi nga xam ni ñoom ñoo gën a riche ñoom ñooy ànd la sax lijjanti wala duñ la boole ci sa bopp waaye Mariama moom gis nañu ni saa bu problème amee ci école bi rek lëm ca man da ko ci def te yaakaar naa nit noonu rek la war a def ci ak moroomu nitam kon mbokk internet dinañu leen topp ba xam fu wànneen di mujjee ki gëtam waaye laataa boobu nag wéyal leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàttee bës ci cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et à très